asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah vendredi 22 mai 2020 ñoo ak yéen ci yëglikaay yi sunu lamb leen xëy doore ko yëglikaay bi nag tey xëy xamu dalal mooy Pape Alioune Mbaye bu Walf Fadjri ka nga xam ne nag mbirum lamb moo koy doxal fa nga xam ne mooy ca Walf FM ak Walf TV tey moom lañ xëy séqal waxtaan mu nga xëy nag xam le ne daal ci mbirum Alioune Sarr taxawaay bi nga xam ne moom la ci mbir yi am wala boog Gris Bordeaux jàpp na ne bu dee la cadre Gris la moom moom la mu jàpp daal moom gin jàpp na ne Gris Bordeaux du dox lenn dul ci li nga xam ne nii mooy intérêt ndax nag daa jàpp ne moom xam na Gris bu baax a baax te jot nañoo liggéey kon jàpp ne li muy dox di wax yépp intérêt kese moo ko tax a jóg ndax daa jàpp ne 45 ans moom ci lamb ëpp na ak yeneen ak yoo xam ne nii mooy loolu moom Pape Alioune daal jàpp na ne képp ku def ci lamb 45 ans di bëre ba 45 ans jàpp na ne arrêté donc nga war a di jéem di ko jéem ba am 45 ans a def Alioune Sarr itam wax naa ak moom ne na bu nekkoon place am daal nee day bàyyi lay def ndax ne na li mu def ci sport yëpp def ko ci làmb ne na tey nag su ma ko jege ñoon wala ma koy conseil ne kon dama naan ko mu bàyyi waaye ne nag duma conseil am te duma ko dégg xam sax defante ko bu baax loolu mooy waxe ki nga xam ne mooy Pape Alioune Mbaye te ci yëglikaay bi nga xam ne moo di sunu làmb kenn koo xam ne ci sunu lamb ñëw na moom moo jiite ñi nga xam ne mooy promoteur muy Pape Abdou Fall moom itam xëy na di fa wax Pape Abdou nag la mu xëy di xam ne daal ci arène nationale ba lay jàmbat de ak location ba nga xam ne nee na seer na fa lool ni ñu njëri jëriñoo làmb ji daal daa jàpp ne frais dafa metti yegg na lool ci ak seeraange ndax nee na bu dee sécurité ba seer na bu dee location ba seer na moom pa ki nga xam ne mooy Pape Abdou Fall moo wax lu mel noonu ci yëglekaay bi nga xam ne moo di sunu làmb mel ni commandant ci itam xëy fa indi ay leeral ci wàllum sécurité ba na ne sécurité moom amul prix boo xam ne moom lañ cay fixé nee na lépp ci waxtaan kese lanu koy lal mel ni kon daal foofu ba tey coow laa nga di fa des keneen koo xam ne nii moom yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom muy sa tabu lamsaar bi nga xam ne daal jàpp nañ ne fi mu nekk nii day ak doxalinam ci làmb moom dese naa daal mel nañ ko yaakaare wala nañ ko bëgge parce que nag ndam gëj na koo am yëglikaay bi ne daal ñetti ngi yoo xam ne c'est diggul victoire 2017 la gëj a am ndam la 4 avril ci digganteem ak Zos yëglikaay bi ñëw ci moom défaite bi nga xam ne mujj na koo am am na ci digganteem ak ka nga xam ne nii moom moo doon guy gi moo tax yëglikaay bi jàpp ne c'est daal fi mu nekk nii moom ab taxawaayam ci làmb ji ah xaw naa doy waar daal wala boog takk na suuf sunu làmb xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu Siteu nag écrit ba nga xam ne ca la moom ka ko jiite ñu naan ko Cheikh Niang yëglikaay bi ñëw na ci moom Cheikh Tidiane Niang daal yëglikaay bi ne na li am ba des daal moom daa mel ni daal modèle la ci ñi nga xam ne ñooy ay dirigeants yi nga xam ne ñu jiitee écrit Cheikh Tidiane Niang daal yëglikaay bi xëy na ca andil ñu ko dan fay jógee nag dem record record nag moom Sa Thiès la xëy tey ñëw ci gëstoob Abou Ndour daal xamal nañu ne day quinze yi nga xam ne def na ko quatre-vingt-six pour cent de réussite Sa Thiès am na ko ay combat tam boo ko xoolee daal du yàgg du të une minute seize secondes daal par combat la ko yëglikaay bi jàpp mel ni kon moom daal jàpp na ni ñu ko tudde daal mbër la moo xam ne day ci lamb ji gaawaay ga daal ak na muy doxee foo lay mel ni ci sa kaw rek day mel ni sawara su at bi suuflee du la xaar du la nekk 2009 la ñëw ci lamb ji waaye boobaak léegi daal teggiwul tànkam mu ngay wane boppam moo tax treize victoire la am ak li nga xam ne ni moo di li nga xam ne mooy deux défaites mel ni ki daal kon Sa Thiès mu ngay wane boppam am na loo xam ne tamit réussir na ko te ay magam réussir uñu ko moo xam Eumeu Sène la wala muy Balla Gaye wala ki nga xam ne moo di Bombardier maanaam neuf combats yoo xam ne daal teglante ko di ko am te amu ca benn li nga xam ne nii moo di défaite maanaam ca dixième ba lay doog a ñàkk combat am tegoon mooy Malick Niang waaye lam saar itam daa mel ni ki daal fu mu miin a la ndax nag daan na fa nekku réel daan fa nga xam ne mooy Siteu daan fa mel ni kon foofa daal ngembam wala ay ndamam gën na faa bëree moom mi nga xam ne moo di Sa keneen a ngi koo xam ne nii moom yëglikaay bi ñëw na ci moom muy ki nga xam ne nii moo di Tafa Gueye ak la nga xam ne mooy ndogu la Tafa nag moom la mu xëy xam ne daal li leer ba leer Tafa Gueye daal nee na li am ba des daal yàpp bu weex moom maanaam ay ginaar yu mel ni ki noonu nee moom da koy lekk lu baree bari ci weeru koor ndox itam du ko foyee de waaye itam nee na sport dina ci def lu tuutee tuuti ngir di maintenir formam ndogu nag nee na damay ndogu bu baax a baax moom na ndogu lu nganda nganda daal lay def ndax nag heure ndogu ba day fekk tamit mu xiif lool nee na ceebu jën moom ñaari yoon la koy lekk ci li nga xam ne nii moo di semaine bi tëdd itam dana ko guddee def moom Tafa Gueye mooy wax nee daal balaa tëdd des fois cinq di du matin dina jot ndax la ko waral nee na daal mu ngi ci grand gar quartier général di ko seetaan wala des fois mu dem seen TV seetaan li nga xam ne ni mooy grand plateau ak yeneen yi nga xam ne ni ñooy am ci guddi gi ci seen YouTube yi Tafa Gueye mooy wax itam daal jàpp na ne moom heure yooyu daal ca lay tëdd waaye nag mu ngay tooñante kalam ya nga xam ne ñoo sant Seck ak Jaw rawatina lay Jaw ma ci RFM ak Boy Kayre mi nga ne naataango mbërëm la ndax nag daal jàpp na ne moom bu xaddee moom Tafa Gueye daal ba pare wala daal bu ci jógee daal moom ne na bu nelawee daal 19 heures la fas yéene yeewooti yëglikaay bi xëy tey ñëw dalal ko ci rubrique ndogu la keneen koo xam ne ni moom wala beneen yëglikaay boo xam ne mooy Leewtoo point net dañ fay dem foofa nag moom Bombardier lañ fay fekk moom daal na muy dunde confinement ba ca France la waxtaan ak xam ne moo di Ndeye na ko rawate ñi nga xam ne dañoo dëkk tamit fu xat waaye âge retraite ba tamit Bombardier ñëw na ca ne na jàpp na ne daal lees war a yokku la wala boog ñu xolaat ko waaye moom jàpp na ne bés yokkul moom kon 60 pour cent lamb daal lay def loolu mooy waxi ka xam ne moo di Bombardier mais jàpp na ne lu ci mën a xew moom yokk a def ndax nee na ku ko war war a jongante Bombardier moo wax koo xam ne tamit ba moom mooy ba mu jóge Fass ak itam écurie bees ba moo di Papa Sow li tamit ne moo di ca Leewtoo TV ka muy dànkaafu du kenn ku dul Ama Baldé nee na ko daal Modou Lo du mbër mu ñuy cof de nee mu ñu war a téye ba mu dëgër la waaye moom jët li mooma Leewtoo point net mu ngi xamal ne moom itam day am na leen lu koy xaar ndax mu ngi teglante ñaari defet kon am na beneen taxawaay boo xam ne moo koy xaar Valdo tamit wax na fa dal ci kaw amee dem ci Leewtoo TV dal yu méttee méttee métti loolu mooy li nga xam ne nii moo fi ñëwoon ci yëglikaay yi ñu leen jox di daje rek beneen yoon. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk ñu suivre ci Leewtoo TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar fu ngeen mën a ne si àddina bi rek di leen balu ak ah, di leen bal tey nag ñu ngi si àjjuma bu mujj si weeru bi ñu ngi bal bépp doomu ak di bal ñu baax di ñaan yàlla jéggal ñu te nangu ñu suñu koor barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te jéggal ñu suñu ay bàkkaar di nuyu bépp doomu sénégalais fu mën a nekk si àddina bi rek rawatina internet yi nga xam ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko saxu ci ñoom di wax ne amuñu seen fay encore une yàlla defal jàmm fu ci doomu sénégalais nekk rek wala fu ci doomu aadama nekk te dim suivre rek rawatina nag moodu moodu yi maa ngi leen di wax mention spéciale yéen tamit parce que gis ngeen ñuy may lépp lu dugal di ngeen ko suivre boole ko seen ay commentaire di ñu yaa ngi dégg ma ciy nuyu ñoom ñëpp ñoom Youssou Ndoye international Saliou Ciss ay tudd yaay Sarr xam nga Ndongo Fall Italie ñoom ñëpp ah ñoom ñëpp Mbacke Kebe ma kenn ñoom Cissé ca Brésil fu ci waay nekk rek du ma la fàtte Abim Ndoye sama xarit moom tamit ci États-Unis duma ko fàtte Mor Ndiaye doomu ndeyu Liiru Diagne ak ki nga xam ne nii moom mooy Ngañ Sow ca Kentucky ca États-Unis taal bi Cheikh Béthio Thioune ñoom ñëpp nuyu naa leen su ma limee dinaa juum waaw di wax ne kon tey daal tey balu naa ñëpp ak rawatina nag fi may liggéey muy léewtu ak kilifa gi di Pape Thialis Faye ñoom Abdourahmane Diaw tonton Diaw borom ADN ak Massar ñoom Séddo Ndey Kumba Fall ñëpp ñu fay liggéey ah du ma limee dinaa juum maa ngi balu ñëpp ak parce que nit dinay tooñ nit ñi ma a liggéey bi yàgg maar yoo xam ne mooy Moussa Biram ñoom ñëpp Ndey Kumba Aïcha ay des taalibi suñ Babacar Si nuyu naa leen yéen balu leen àq xam nga du mën a ñàkk parce ni des mu tooñ te du ko yëg maa leen di baloo bu baax a baax a baax a baax waaw tey nag bu ma ñëwee ak sunu journal bi nga xam ne nii mooy sunu làmb la xam nga yëglikaay bi tey fi mu xëy ñëw fenn la maanaam Gris Bordeaux ci la xëy ñëw waaye ki ki mu ciy waxal mooy Pape Aline Mbaye Pape Aline Mbaye lañ dalal moom nag la mu xam ne daal mooy ki nga xam ne nii mu di Gris Bordeaux moom jaajaab ne ci intérim lay dox Pape Aline loolu la wax waaw nit ki nag gis-gisam lay wax buñ ko laajee moom jàpp na ne parce que li tax mu wax ta mën a a def ne na bu yeboo loolu la waaw Gris Bordeaux nag ne nag la mu gis wala la mu yaakaar loolu la wax nit ku ne nag la ngay wax yow xam nga fa nga ko teg ba tax nga di ko wax la ca des nag Gris Bordeaux la ak moom ñoom ñaar ñooy xool nuñ koy traité waaye loo ci mën a dégg daal nañ fexe fexe ba ku ci ne xeex booy xeex nga xeex ko ngir intérêt national mais bu mu bañ a nekk intérêt personnel parce que intérêt personnel waaw du am njëriñ su ma continuer ba tey tamit fi nga xam ne ni mooy ci suñu lamb boobu ba Abdou Fall xëy na fa moom moo jiite promoteur yi moom jàpp ne location arène nationale Abdou Fall mu wax loolu combat naa moom la mu xam le mooy arène bi jàpp na ne moom seerul moom daa jàpp ne bu dee côté sécurité bi moom bokk ci sécurité ba sax la wax pap euh, ki nga xam ne mooy combat naa ci ñu la jàpp ne loolu du lu seer ndax ne na loolu waxaale ba jubóo wax xëy na mooy wàllum mooy waxe ki nga xam ne mooy fa jógee dañuy dem fa nga xam ne moo di ca record balaa may dem record sax damay wax fi nga xam ne ba tey mooy ci sunu lam ndax indi nañu Cheikh Tidiane Niang boo xam ne nii ah moom tamit taxawaayam macha allah rafet na président la bu exemplaire ci président écrit yi Cheikh Tidiane Niang bu Lamsar ki nga xam ne nii moom mooy euh, Siteu tamit ak li nga xam ne nii la gëj a am ndam ci digganteem ak Zos moom tamit war na ñëwaat ci beneen ñëwin kon ñu dem ci record tey Sa Thiès ak 86 pour cent de réussite ci carrière am def na di combats yu 9 combats yoo xam ne nii amu ci defet muy loo xam ne record la boo xam ne baatar na ko boo xam ne Balla Gaye magam amu ko euh, Bombardier amu ko Eumeu Sène amu ko loolu sunu record a xëy indil ñu ko mu mel ni kon daal moom itam ay combat boo ko tënkee bu yàgg de waaw waaw moom daal làmbam moom yàggul une minute ay ay secondes yu tuuti daal mu résumé làmbam bëri ak yow jógee fa moom Sa Thiès dafaa la tey moo fa ne ba tey ci journal record Tafa Gueye moo fa nekk tey moom nag na muy woore ak na muy ndogoo ci la xëy wax moom viande balance daal ne moo ko gënal ci maanaam li muy xewloo guddi gi waaw waaye nag jën moom jàpp na ne ñaar yoon la koy lekk ci semaine bi ci weeru koor gi waa tamit ne na moom dina viande balance bi daal ak xadd bu dëgër tam dina ko dat xadd moom Tafa Gueye loolu la wax ne na lu jëm ci côté kii bi tamit ne na mënta tëdd guddi te lekkul mango ba tey loolu ay waxam la Tafa Gueye daal ñëw na ci lu yaatu yaatu tey ci rubrique ndogu parce que su suñu ay confrères te boobu ba tey li affaire bi mu ngi rafet kon moo xam Abou Ndour la record Iba Kane sunu lamb Dembélé sunu lamb ñoom ki nga xam ne mooy Assane Walu Gaye ñoom ñu fay liggéey ñëpp seen DG yi maa ngi leen di bëgg di leen ñaanal jàmm leen balu mais di jégglu ku mu mën a doon parce que mën nañ fee wax wax boo xam ne nii ci reportage wala ci interview wala ci revue de l'arène day déranger te bu keroogee loolu duñ ci jublu loolu moo tax ñu ngi balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yal na fi yàlla def jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon gisee tey ma sol maillot national bi parce que lii moo ñu boole drapeau bi version rouge am étoile bi si digg ba yaa ngi dégg kon ñoo bokk Sénégal na lépp di rafet moo xam ci diine ji la moo xam ci lu mu mën a doon rek di ñaan yàlla yal na yàlla def jàmm ci réew mi yàggal fi suñu kilifa yi diine yi moo xam ci islam bi la moo xam ci chrétien yi la waaw di wax ne ko Sénégal ñoo ko bokk yal nañu yàlla may korité ak jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te corona bi jóge fi barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam bëgg naa ñëpp si ñëpp ñaanal ñëpp jàmm